nga tudd. ça va man Ndiaga laa tudd Ka. nga nekk commerçant yu nekk fii ci Sandaga te ngeen amal grève boutique yëpp tëj mun nga dellusiwaat ci li ko waral. waaw mun naa dellusi li ko waral parce que ñun on a l'impression que nous sommes des enfants pauvres de ce pays parce que on a constaté que depuis toujours pendant des années à chaque fois que gouvernement bi soxla xaalis wala dara. dafay yokk suñu taxe surtout au niveau du port taxe valeur actuellement dañ ko yokk de telle sorte que ñun ci boppam bu ñu demee importe produit bu ko indee fii duñ ko mën a jaay tellement que dafa dafa dafa cher te ñun li ñuy contribuer ci dëkk bi mën naa ne quatre vingt pour cent ñu nekk ci dëkk bi duñ ko contribuer léegi nag ñun dañoo sonn à chaque fois aussi ñu ngi déggee pire marché yi guddeeg bëccëg da ngeen dégg ay déguerpissement yoo xam ne duñ ko teg fenn ay marché yuy xam ne amul benn explication boo xam ne mun na ko joxe on en a marre nag franchement dem nañ ba toll foo xam ne mënatuñu. mouvement ni boo gisee mu def ko sës moo tax ñu def ko parce que dem nañ ba tel sorte que fu mu toll nii nii nii nii toll nañ foo xam ne ñun mënutuñoo dem fenn te ñun ci dëkk bi leen dëkk. actuellement nii 72 heures leen décrété mais si toutefois le gouvernement de ne réagit pas dañuy obligé yokkaat yeneen 84 heures fu mu toll nii lii du dara lu grève d'avertissement la. te je vous rappelle aussi du kese la c'est au niveau de toutes les régions bàyyiwuñu kenn vraiment actuellement nii nous sommes donc il faut que gouvernement bi xam ne ñun ci dëkk bi leen dëkk il faut que gouvernement bi xam ne ñun dañuy participer ci développement réew mi donc il faut que gouvernement bi xam ñun ñu ndaw réew lañ te liggéey moo ñu tax a jóg sàccuñu wurujuñu yàquñu donc dañuy contribuer ci caisse de état bi mais am na yoo xam ne mënuñu ko imaginez benn produit boo xam ne yaa ngi koy yëndee 1000 francs fële ñu bëgg la ci tegal ay taxes yoo xam ne dépassé na 1000 francs boo ñëwee noo koy jaayee. c'est trop c'est trop il faut que le gouvernement arrête il faut que gouvernement bi xool politique am surtout ci côté commerçant yi parce que commerçant yi xool nañ ne ñun pratiquement dañuy rester amul benn respect boo xam ne gouvernement bi jox na ko commerçant yi te commerçant dafa bokk ci loo xam ne moom mooy développer dëkk grève bi ñuy def nag certes commerçant yi ñoo ko initié mais du pour commerçant yi mais c'est toute la population ba ci xale bi doo ko nii nii daf koy intéressé parce que commerce moom mooy doxal dëkk commerce moom mooy lépp sans commerce dëkk du dem donc gouvernement bi il faut que mu xam loolu du ko ci boppam jéem a wekk commerçant yi jéem a xool nan lay concentré moom mais dugg ci biir bureau toog bind seen li ngeen di bind taxaw jékki-jékki ne léegi tax yi la leen teg loolu dañ ko tegul fenn il faut que ça cesse. dafa bari Dakar rek la yem wala na yeneen dëkk dëkkaat yi. bi yemul Dakar yëpp day dem sur toutes les régions. muy dakaar Thiès Tamba Kolda fépp actuellement nii département yëpp ñoom ñoo actuellement nii dañoo suivre mot d'ordre bi fépp foo mënta dem actuellement marché yi dañ leen tëj voilà. est-ce que ne bu ngeen wàccee rido yaa ngi koy wax léegi bu fekkee gouvernement bi réagirul di ngeen ci yokkaat yeneen fan est-ce que du andi wàllum wàññute ci seen koppa certes mais ñu def loo xam ne tey dañuy gaañ tey pour defar ëllëg ñun moo ñu gënal gaa dinañu gaañ. parce que commerçant bu toog benn fan ñaari fan ñetti fan liggéeyoo te si nga yaakaar pour yóbbu dépense dina ñu gaañ mais ñun on préfère ñun ñu gaañu que ñu defar ëllëg ñun moo ñu gënal tey actuellement nii comme je viens de le dire kii bi du ñun kese mais on bat pour la population lii nii ñu xeexaluñ suñu bopp kese mais population bi la ñuy xeexal parce que tey xam na ne tey bu ñu nekkee suñu magasin tey lépp di ñëw bu ñu ko yokkee it kan moo koy yëg. d'accord am na benn communiqué bu RFM génne sànq euh, ci bëccëg daal ne grève bi du commerçant yi ñoo ko initié waaye ñeneen la loo ciy tontu. non euh, ñi wax loolu ñoom ñoo la concerné mais yéen boo leen xoolee ville bi nu mu mel ngeen xool capitale ni mu mel ngeen xool magasin bi nañ mel yéen war ngeen juger xool. kan moo initié grève bi est-ce que du commerçant yi wala du commerçant yi est-ce fii nii Sandaga yëpp Sandaga gis ngeen fi commerçant bu tijji kenn tijjiwu fi mais nag bu fekkee dafa am benn groupe de personnes boo xam ne ñoom ñoo c'est un groupe moom moo taxaw di am lu muy wax naan ay kii kooku seen affaire la ça leur concerne mais dinaa weer di gis bokk ci tey boo leen xoolee dëkk bi xam ne carrément ne yi ñoom ñoo grève ñoom ñoo grève voilà léegi nag li xewoon bu njëkk ba léegi ci boppam dootul xewati duñ ko bàyyeeti léegi xale màgg na commerce bi dafa toxu dafa dem ci xale yi te xale yi am na yoo xam ne duñ ko accepté duñ ko def maintenant ça leur concerne nag ñi taxaw naan ay grève na nag grève wul na nañ xool rek bu ñu xoolee nañ xool commerçant moo grève wala commerçant grève